asalaamaaleykum mbokki internet yu wasaare célébrité dal leen ak jàmm et bienvenue dans votre rubrique K sur le plat histoire Mabo Zeyna ba léegi coow laa ngi jog mais tey wax du bari déglu leen conversation boo xam ne am na ko kii di No Face ak kii di Adamo bu ñu paree Adamo daal di leen résumé lépp jox leen ko sur le plat tey moom moo doo wax Adamo doxal la. ma laaj benn benn benn souligné bu ndaw quoi. parce que gel bi daf ne moom ba moom nee na ay mbokkam d'accord woon ci sëy bi nee na yow nee na yow nee mu ne day dugg ci a teg projet boobu noonu. nee na ay mbokkam maanaam ay tukkuleur lan ay tooroodo dañ ne woon maanaam ñoom du ñu sëy mais mais mais moom dafa bàyyi loolu lépp ñëw dugg ci yow nee na yow yaa bëggul woon sëy bi siiw ak yooyu. waaw yaa dégg bu baax. waaw na moom ay mbokkam. ay ay tooroo dolan maanaam ay tukulër uh-huh. te den ay mbokkam dañ ne ko woon maanaam ñoom du ñu sëyeeg les maabu mbokk yi du ñu dugg ci maabu yi léegi moom mu ne day bàyyi lépp ñëw dugg ci yow yaa ngi dégg léegi nga nag uh-huh. nga ngeen waxtaan ne maanaam mariage bi wërta siiw uh-huh. xam nga bon man nag comme dama wax ak mbokkam joxe kàddu ba pare maanaam kilifaam ñi nga xamante ne ñenn ñi xam naa ñeneen ñi démb laa leen xam comprendre nga ñoom ñëpp dama waxtaan ak ñoom joxe sama kaddu te gor moom gor rek lay doon comprendre nga mhm. donc su ma expliquer dafa mel ne damay xaawi sutura daal comprendre nga te mhm. vraiment nekk ma ci yooyu su ma amoon ni live la nii sax du ma du ma si dugg comprendre nga mais tamit mënu ma ñëw rek comprendre nga bu ma sañoon daal li ma la wax ñaanoon rek sutura comprendre nga sutura parce que biñ ko dafa tegu ci l'islam ñu def ko ci islam lenn nag moom laa xam mooy bi ma koy def def ma ko pour kenn def ma pour benn sénégalais nëbbu tuuma samay mbokk yëg nañ ko ñi ma booleel ay mbokkam yëg nañ ko donc ci siraatal mustaqim lañ ko teg bon li xew nag man nag du ma ci dugg du ci wax comme réglé naa ko ak mbokk yi ba mu rafet ba pare soo bëggatuma mu mu am dara lu ci xew comprendre nga. dëgg la. loolu daal ba sañoon daal yow tamit nga dimbali ci bu baax a baax a baax saa waay xoolal bàyyil mu mu sedd quoi. non man ne lu ma la wax nee naa la man dugg ma ci problème mu kenn tey ba ma la woowee nee naa la moom moo ma contacté. nee naa ko yow yaay wër ci internet yaay wax moo li jënd sama numéro woo ma man amul ci ku may dugg man yow rek laa woo tey pour déglu sa version yow rek laa woo tey te yow li nga ma wax yan na maanaa dégg naa li ma wax lépp loolu nekkul lu may waxaat fii. Mm-hmm. waaw kay léegi moom moo ma woo contacté ma wax ma ay affaire am wax seen problème. waaw kay non la demee moom mooy dem ci internet yi moom mooy bind yow ba tey gisuma la nga dem ci kenn gisuma la nga dem ci benn site internet bind lu woo gisuma la vidéo yi mu naan yor nga ko gisuma nga wax ci dara man kay li ma ko wax leer na. non kii la rek xelu xale la rek. waaw xelu jigéen la loolu solo. waaw yëpp baal yëpp baale naa ko garaawul yëpp am solo. jeex na yàlla baax na. kon baax na yow maa maa ngi lay jaajëfal. jërëjëf jërëjëf. dégg ngeen ko. tey nag man ak moom waxtaan nañ lu bëri waxtaan nañ lu bëri audio yaa ngi fi euh, kii yaa ngi fi mais dafa comme que moom bëggul maanaam kiyul maanaam bëgg na maanaam ñu suturaal gel bi ak leneen leen li ci xew moo tax teguma ay audio wala may teg ay enregistrement man xam nga ne ku may waxal lépp laay yore comprendre nga bu ay problème amee mais noo fees ñëwul ci man noo fees man maa ko woo pour déglu version mais gel bi moo cherché sama contact ba ñew ci man parce que ñom jigen ni dañuy bëgg ngay ñew ci ñom ñu lay tuddal diw yeen ngeen jog naan waaw no face mo no face doomu kharam la no face ku bon la dedet man jobé wu ma nono non non amul kilifa dañ koy waxte dé amul ay mbokk bu féké nangu na lolu amul ay mbokk dañuy waxanté dëgg waaw man duma duma def lolu ay taxaw naan no face ku bon la no face day toroxol jigen dafa wax da koo day saga jigen pour kuy victimiser wu koo xam ne ay mbokkam dañ ne ko d'accord nee na ci li wax nee na mu dem nekk ak moom. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi léegi laa pare live ak xale bu jigéen boobu di Zeynab te mu ne euh, No Face da koo takk takk suuf léegi laa pare live vingt mille personnes ñoo doon seetaan jigéen ñu bëri danoo bëggoon ma ànd ak ndaw si mais ndaw si dama ne ko amul kilifa ndax nee na moom ay mbokkam dañ nekko ñoom ay tooroo daloon du ñu sëy maabu nee na moom mu bàyyi leen fa ñëw sëy moom nangu takk suuf bi. yaa ngi dégg nangu takk suuf bi kon amul kilifa ñaar nee na fan la dama ko laaj ne ko fan lan la takkee takk bi Amérique la wala Sénégal mu ne ma je pense Touba parce que xamul sax fu ñu ko takk bu lay takk dina la indil cat xamul sax nu yére mariage di jar kon takk boobu noonu luus na beneen bi ci tegu mooy nee na mu sa def rapport ak eh, ak ak ak no face ba pare sëy bi durante sëy bi yëpp li nu xamante ak sëy bi dafa gaaw un mois lay tolloon mu sa def ak moom sexe nee na gise nañ trois jours ñetti fan ne nga def ko ci kër nit te laaloo ko mu nekk sa jabar ñetti fan nee na mercredi mardi la ñëw mu ne ko non mercredi duma ci laalante jeudi duma ci laalante mënuñoo tëdd man ndax ne bu man boo ma dee laal day metti dégg naa day metti kon vendredi lay tëdd affaire yu kenn xamul ndaw si lu ko dal moo ko teg boppam gis na maabu ni mu demee ak Mia gisee Sénégal gi yëpp teg ci seen bët mu dëgg mu dugg ci moom yaa ngi dégg ndaw si ay waxam yi muy wax yépp dara leeru ci nee na nag ah No Face dafa yor ay vidéo loolu moom mooy problème bi vidéo yi nag nee na moom No Face da koo capturé d'écran maanaam No Face dafa simmeeku ba set moom mu simmeeku ba set nee na mu capture ko d'écran te man loolu man nag yaakaaruma ko man tamit ndax gaw ma ne No Face ñàkk na fayda ak personnalité am bay vidéo boppam di capturé di capturé ndaw si nga xam ne da koo takkoon mu ne jabaram la man dama gëm ne keneen mën na jël ay vidéo ndaw si am na ko mën doon defal vidéo mu na ko noo fees pour di ko wax naan ko xoolal sa jabar li mu nekk ak affaire yooyu nii daal la kaa bi demee ma wax mu naan ma man sama yaay américain la contact na ay don mais américaine sa yaay bu nekkee américaine kay boo amee problème demal ci John John John Biden la xaw ma John Biden borom américain yi ñoom ñoo dégg xawaari yoo ah ah xawaari yoo what do you do ñoo ko dégg ñun dégg ñu loolu ñun ay Sénégal la ñu traité seen i cas ñun sénégalais yi la waxtaane bu dee sa yaay américaine la dangay dem ci américaine ya mais yow yaa ñëw ci ñun no face dégguma ko ba ba tey mu ne yor na say vidéo ndaw si moom moo ma contacté moo contacté Tito Dakar moo contacté internet bi moom rek mooy wax du kenn koo xam ne mooy wax ku du ndaw si dégguma dara lu ñaaw ci no face wala ci keneen ak keneen nanu waxante dëgg sénégalais yi ndaw si amul kilifa point final bu fekkonte no face dafa def lu mu war a def ma teg no face teg ko ci accès mais ndaw si fan ngeen xamante ñoom ñaar mu ne salaam salaam lan xamante salaam application wala la man salaam jàllo sax laa ko tegoon lan mooy salaam ci Amérique nee na ñoom ñaar salaam la ñu xamante un mois la xamante takk bi gaaw lépp. chers internautes de Wassare Célébrité yéen a ko déggandoo casse sur le plat tey lii la woon mais le problème à nekk tamit war ngeen ci xalaat pourquoi nan ngay takki benn jabar quatre jours kese kese nga ne da ngay dem peut gis nga lu garaaw. wala xam nga lu graw wala ku jékki tamit nëmboon na la lu graw a graw graw graw parce que mënoo takk nit bëgg ko lool dem ci ay fañoom ñaan ko jabar ak jabar nu mu mel nga bëgg maanaam nga jóg si problème maanaam problème bu nga jógee mu metti lool lool nga bëgg duggaat ci beneen jigéen balaa ngay dugg si moom di nga xool xoolaat xoolaat bu baax a baax nga xoolaat ko ba takk beneen jabar 4 jours après nga ni da ngay dem am na lu tax nga war a dem est-ce que ku jege amul dara loo xam ne moom la doon nëbb wala peut-être kii di ñëw fees xam loo xam ne xam ko woo si ki mu tax mu daal di dem en tout cas cas bi ba léegi moo ngi continuer waaye boo déggee ñëw fees comme nu ko waxee si vidéo bi moom nee na sutura lay jox kii di ndaw si mais pourquoi ndaw si moom tamit daal di siwal affaire bi kii bëgg sutura kii bëgg siwal en tout cas fu mu toll nii moom histoire bi dooy na peut-être comme ni ko noo fees waxee est-ce que ñu bàyyi mu daal di sedd sutura daal di dox continuer parce que moom nee na waxtaan ak ay mbokkam ak ñenn ñoo xam ne xam na leen may yàggul dara dara mais ku njëkk daal moom dafa mel ni bëggul histoire fay moom na yàq deru noo fees ba dew fees comme ñu bëy na ko tàggale si Mia commencé continuer di ko tàggale noonu moom ba léegi waxul sutura lay wax sutura en tout cas ba léegi histoire bi moom. kenn mënu la wax kii moo tooñ wala kële moo tooñ parce que pour man histoire bi nekk si biir dëgg dëgg dëgg kenn xamagu ko mbokk internet yi Wassare série bi di tey leen loo indiloon tey seen biir rubrique cas sur le plat comme d'habitude cas yëpp lay jël defal leen ko sur le plat ngeen tànni si bu leen neex avec votre frère Momo Rassoul ciao n'oubliez pas de vous abonner sur wa série bi